kat saf Chaba remercie ses partenaires. Modou Gay, artiste peintre. Fabi Shop. Gina Zao, Beauty Zone. Chaba.

bi jar na taxaw waay are mer ca ba ñëpp ràññe na ko are mer ca ba ñëpp taamu na ko amul morom merci Rosa de El Hop pour nga ma dëgg ki di mel bu ndaw gis nga kii lu may gën a rejeté man may gën a ñëw ah, loolu boo bëggee dara sax nag da ci ciy dem ba jeex bul bàyyi. dama dërkiis ne Tafa Boy Bambara damay dox ci kawam. yow xanaa xamoo Bintu je t'aime il n'y a que toi Bintu Bintu je t'aime parmi toutes mes copines. Eh, eh, toutes tes copines yan <laughs> yow engagé woo muy tawee ko ne El Hadj Touré wala parmi toutes mes copines. eh yow tamit bintu loolu dara nekku ci daf la bëgg wax ni rek yow la bëgg. man sax daa am ku ma nekkal. ah dama koo jox bopp <laughs> la ma ne la moi je jigéen balaa neex sax nag ñu xëccoo ko. <laughs> bul daw. ragaluma loolu de. waaw. bàyyi eh, maa jël numéro ci Chérif. def ko càmmiñ di ko invité fii ñuy def suñuy reer yu baax di toog di ràcc di waxtaan te attention dama ko joxaale mission nag nee naa ko Chérif nag foog mu surveiller ma ko te léegi comme yow rejoindre nga team bi da ngay nekk samay bët ci kër gi rek bu boobaa mu gën a neex ah yow tam bàyyi li ngay def. ndeysaan ndeysaan ndeysaan tabaarakalla macha allah xale bi la doon jong ma lu ma mën mooy mission d'expertise loolu la ñuy wax service secret man dama ko xam man dama def armée. damay xam nan la ñuy defee service d' espion maanaam dugg ci biir kër mel na damay seetaan télé fekk seetaanu ma télé xam la laay lu ma xam rek laay wut dugg di xool di lëmb donc yow service bi nga ma jox ci man Serif nii man maa lay jox dossier yi ngay traité ko. ba ma la jàngee laa xam ne xoolal du ma ci jëlee defet ndam rek laa ciy am. <laughs> yaa ci mën a jàpp nag yow tamit. man de man pour sama kaa danaa la jox samay bët ba mu mat mm. tant que duutuñu ma baaraam moom maa ngi jox yore sama bët yi di xool <laughs> lépp loo bëgg ca kër xam ca kër gi dañ ko xam ndax dinaa la fa taxawal ba mu mat sëkk nag bu la dara métti ragaluma loolu man moo tax wala il faut ma gis leen ensemble waaye nag lenn am na ba des de làmmiñ baaxul pour kaawu kàcc def leen tout ba du yëg sama diggante Chérif xam nga nooy def hmm. da ngay ñëw kër ga hmm. jéem a jënd titre foncier xoolu waa kër gi des fois boo ñëwee nuyu nit ko bokkante moom rek xam nga tey bu demoon ba siiw nit ñi dañ naan am nga fa place. yaa ngi wax lu ma mën. waaw den ñëw kër te kii da eh, kii dafa bokkul ak kat yi xoolal kii tey bi mu yor kat yi mi ngi mel ne courant bu coupé. Eh, ah. nañu arrêté waaye tamit nañu xoolal bokkul. waaw kaay leen ñu reer nag kaay leen ñu reer vraiment wax ji doy na. yaay dama yaay nak sant na la gërem na la wax deug fa indi lo ma fi jabar jo xamanteni nek fi dik tiktok indi lo ma jabar joy ah bébé amul instagram bébé nekul ci facebook bi bébé nek fi di duggal estati bébé amul youtube bébé dal man la am man rek la am no yaay ya mën a serif Chérif lay conseil ah jàppale ma lay conseil la bu fekke da nga bëgg tak ñaarel bi yow nga dem dekk ba voilà akati away ci waduh, de man damay mbalak nii rek yow sa yambar bi ki yagul bu mu tak ñaarel man dinaa takk ñett la ci benn fo i ya, s'il te plaît bàyyi ngay def may tamit bàyyi yaaye yaaye doo wax kii nii dafay raay ci digg tànk tama dama ragal loolu mu troxal ci digg nit ñi waaye fokkal baaraam ji rek mu raay i alu xew tey alu moom balaa gàttaay bi ay waay ku gàtt sañ sana waay eh noppil yow waroo wax man maa war a wax yaay xam nga Rose kan mooy Rose mooy xale bu jigéen boo fi ñëwoon te te bu indiloon la suukaru koor bi ah, nga dëgg moom daal moom ma invité woon reer moom laa seeti woon li may ñibbisi mu teral ma jox ma ay bagage yu bari ci yoon bi danga laa di santeeg affaire bi compost bi mu jàppale ma bagage yi oh, eh, eh, eh, un peu de respect comme ça ou là. C'est ça le romantisme. Il a le jungle dans l'affaire, quand même. Oh. Bintou, Chérif voir ngaa wax ak sa rakk ji ëppal na naxaru pol pël bu nu fël-fël muy ñammi-ñammi de kii war nga ko yedd mu réglé mu mel na ngelaw nii. eh waay kan semua man su may ngelaw yow ngay lance pierre. <laughs> bintu kan ngaa wax. Oh, oh. Meg, Meg.

kat yi tu ci wax. door. monsieur Ndiaye. bàyyi ko rek yegg si. Ben de. monsieur Ndiaye. bu ne Déjà, je dama la bal àq ndax yow man je la tooñ di ko mu la nit ñi nit moo tax tey tu la indi yi nga amul effet secondaire te lépp sa tasew monsieur Ndiaye loo war a defal nit rek defal nga ma ko mais monsieur Ndiaye man dañ liggéey def ko ci ko du noir moo tax lu ma gis dama koy tibb yóbbu ay monsieur Ndiaye baal léegi maa ngi ci arrêt Bercama fa laay daan sama doole. ay ton yow tamit bul joy ndeysaan ak baax baal ko rek baax na benk amul problème baal naa la ak waaye benk benk benk ñaatoon laa la woo benk fasal jom réew mi métti na liggéey amatul ah hein? benk changé ah baax na ma toog bi ma ñëw ñu bu ci kanamee maa ngi ñëw ci kanam. ay waay ay waay. kii du changé bokk. changé na solo. c'est pas possible. léegi temps yi daa ciy dugg ba daa commencé miin moo tax heure bu du wax. sama yaay laa koy keneen indi ko ay bés adduna amul solo yow nekk fi ku wax nga ne ko àdduna amul solo yàlla baax na buñ lay juy sax dalay bett. Eh, dox ba yenn heure yi bu ñëwee war a xëy jàppale dina jëm gargot bi mun a fes eh, ba may ngi ñëw. ok mel nga ngi nii sax. kon yéen fi ngeen ne di ma jëw di wax ci man sama der bi lu leen neex ngeen teg ko ci. ma ñew ngeen naa ma ay meng kan ngi ni kan mo la jëw. ma doon nappé xamna bu ngeen ma doon jëw sax ba ñëmi mi bokk ci ma xamni aduna tukki na ndax bax na yaru na tey yar nañ ko ni ko wara yare ñi ci dess ñom mom xuruusu rek. man sa lool yëpp man waxuma ko dama ne fo nekkon xama fa la nekkon ci go kam sama doomu ni yaala mu febar ma dem seet juko ayyo kon mbéy nga am nga mbokk. ay waay mais nga mënoon nga faa toog nga fanaan fa ba suba man xaw ma situation bi nii la demee kon du ma fi nekk di xultu ay bintu loolu kenn du ah ne am na ay mbokk. bintu boo ma gisatee seen kër waaye ma ante njéemé. reggin tes tes. jërëjëf koo jëm. boo ma de. ay de yërëmtalu dem benn waaw mais yow lan la xanaa koor gi la. sant yàlla rek. ay sant fi ngay ñepp a ngi sant mais boo ñëwee toog nii yërëmtalu nii ñëw itam yow ñu la si nii tamit. ñu bari doon yaakar ne aw ma fu jëm. bonjour bonsoir Meng. dama xif koor gi dafa metti defal ma nen 8 euh, nen. 8 nen. huit nen petit pois 200 mayne 150 muy gaway rang muy gaway eh, eh. Meng rang muy gaway dama xif dama woron Mambal bala nga lek huit nen xana da ngay def ay don de masque jox nit ñi ku nek masque mu té lan nga bëgg a wax foofu balaa ngaa lekk wit nen ci biir nit non non li nga bëgg wax laa wax li nga bëgg wax jaar ci moxom pour dékku nen yi bàyyi nga yabaale man du sa morom de da nga baax la ma la du sa morom laa la wax mais dama mu gaaw mu gaaw yow yow yow yow an sa jabar sax ba ngay wër di ndekki di ndog ci àll an sa jabar man dama liggéey man dama liggéey sama jabar dama liggéey mettre ko dans de très bonnes conditions yóbbu ko ay Dubaï ay Chine muy indi ay marché marchandise man maa la laajoon man maa bëggoon xam léegi bëgg xam léegi jeex na. loolu sama jabar day élargir dossier bi non non baax na baax na baax na baax na yow fan moom ni nga mel moom dafa ñaaw trop. man maa am fu ma jëm ak kam maa am fu ma dem. teew su ko fay tamit lan la sax benn mooy lay wax fu ma fanaan teew ma fu ma nekk teew ma rek. waaw loolu mën naa la ko nettali nu mu demee. baax na comme déwante comme comme comme professionnel ñun lu bëgg wax ji quoi. voilà voilà d' accord comme comme comme comme salade bi ma la weeri xawee xawee rey bu koy jéem saa yëpp ànd ko daal la weeri am bay rey. d' accord bindu. moo mel ba mu ñëw. ok mu ne ko dama ñibbi seen kër yaa ngi asal kër gi. góor léegi toog ci këru jàmm goo xamante ne borom kër gi dafa fi bàyyi nga ñëw di lekk di naan amoo fi fond amoo fi place demal ñibbi bindu. dama say mbokk kese. voilà waaw mais dama say mbokk kese loolu jërëjëf. kon delloo say mbokk xanaa bëy kay day ànd ak moroom bëy bu la ànd ak cere. woo fanaan rek. non non eh Mbengue eh Mbengue non non waaye Mbengue Mbengue xoolal xoolal kanamu yërëm mu may jox Moustapha Naam. les lames de Moustapha Naam xoolal tem tik tik. Кади со вселе теур. Are mergea la